Macky Sall mooy parrain bi moom mooy encourager nit ñi ne leen jox naa leen responsabilité jël leen pour mun a dem politiquel ma pour mun a dem jënd sénégale ñu woteel ma lu leen ci fekk dinaa ko gérer moo tax kuñ ci jàppit du mujj fen trafic bi am na fi faux bi am na fi jaay drogue am na fi léegi lii ñëw ñooñu ñëpp tey non seulement dara da fekku leen ci waaye ñi ngi dox seen dox tranquillement li gën a garaaw mooy dañ leen di jox ay ay poste dañ leen di jox promotion kon benn responsable moo am ci lii mooy Macky sal te li ñu yàgg def mooy nëpp nëppal affaire yi ci loolu la ñu nekk de dégg ngeen keroog ministre des finances ne na ngeen ko wóolu ndax dinañ jël rapport bi jox ko chancelier muy ministre de la justice moom mu yëg ko yëg ko procureur ñaata rapport la ñu jox chancelier ñun recensé nañ lu mat cinquante scandale yoo xam ne am na fi diggante bi Macky Sall di toog ak léegi ñu ngi ko bloqué diggante ministre la justice. ak procureur kon dañuy fexe ba suulaat nëpp nëppal mbir mi wala ñu fexe ba jël ay nit yoo xam ne ñoom second couteau lañu mooy dañ leen di def loolu ñu def mooy daaj yi ak comptable yi waaye fexe ba ministre yi nga xam ne ñoom ñooy ndeyu mbill gi ñu teg ñu fexe ba écarter leen ci responsabilité mbir mi loolu yàgg na fi te xam nañ ko ñuy wax nag waa senegal nun de dañoo bëgg ñu wane ni bëgg nañ suñu bopp parce que bu bu leen leere ni këpp alal gi nekk ci réew mi buñ ko xayma woon yëpp ay milliers de milliards la loolu rek mënoon na régler xëyu ndaw gi loolu rek mënoon na regle paj mi loolu rek mënoon na régler mbayu ndëkk bi loolu rek mënoon na régler tali yi ndox mi courant bi loolu rek mënoon na regle lépp loo xam ne ñu ngi koy jooytu fii la ñuy këpp mu waroon dem ci lii ñu jaarale ko feneen ay nit yor ci ay milliards denc seen xaalis ci ay banque fële ci réew tugal yi tabax seeni immeuble biir Sénégal ci alal goo xam ne alalu mbo mbooloo la buñ ko réglé woon rek tey kenn dootul toog di jooytu yenn yi waaye askan wi moo mën a réglé loolu boppam moo tax ñu wax ni askan gi la gën a saytu alalam moo la ëpp développement mbokk yi tubaab yi dañoo ñu raw fuuf ci bépp fànn nag su dee ci mbirum àdduna waaye gis ngeen ni barki démb rek kenn ci député européen yi dafa dem Qatar ñu may ko fa xaalis gu dul jeex du xaalis Europe de du xaalisu réewam du xaalisu continent am dafa dem feneen ñoo ñu may ko xaalis waaye tey biñ ko découvrir ma nga ca kaso ba moom ak ñi mu àndaloon yépp ku la gën a euh, farlu ci saytu alalu réewam ku la gën a fartu farlu ci bañ lenn ci sénégalais yi rek nga xam ne matuñu sax zéro virgule zéro zéro pour cent à kii moo alal réew mi kooku moo la gën a développé parce que alal googu buñ ko saytoo ni ñu ko war a saytoo mooy dem fi mu war a dem cest diir ci askan bi moo tax dafa jot nag bii waruñu ko bàyyi mu romb bii suñ ko seetaanee nañu xam ni lu ko neex na def ci réew mi bu fi kenn jooytootu loolu moo tax ñun ñu woote du mbirum politique du mbirum Ousmane Sonko du mbirum Yewwi Askan Wi du mbirum société civile bi waaye mbirum sénégalais yi la comme nag yàlla dafa ñoo nattu ñu jiitu am lu ñu woote suñu digganteek sénégalais yi gëm loolu it ndax xeex yorin gu ñaaw gi ñuy yor réew mi ñëpp dañ ñu ci ràññee bi ñu duggee ci politique ba léegi loolu lañ ñu gën a ràññee moo xam ci communication moo xam ci assemblée nationale moo xam ci lépp li ñuy def xeex nañ ci petrole bi bind nañ ci ay livre xeex nañ ci détournement xaalis bi xeex nañ ci li ñuy def ci suuf si kon ñun lii du guléet waaye dañuy jàpp ni mbir mu askan wi yépp la nag moo tax suñu wootee wootewuñu ngir ñun dañoo woote pour askan wi nañu fexe bu bii bu mu romb moo tax ñu woote am programme bu ñu tëral programme ba ba ca jiitu mooy le 30 décembre suñu mbokk société civile yi nga xam ne politique guñu laajuñu réew mi laajuñu mairie laajuñu assemblée nationale waaye réew mi rek moo leen ñor ñoo woote ne lii duñu bàyyi mu romb ñuy wax képp kuy sénégalais te fekke ko te mën ko te tal ko ak foo munti nekk ci Sénégal góor góorlul nga dem ci ndaje moomu parce que bu ndaje bi réussiré message bu foor la ñuy envoyé Macky Sall waaye bu la ndaje bi échoué ñoom dañuy gën a am fitne comme askan wi yéegalu yaramam lii xew nañu continuer wéyal li ñu wéyal ñaareel bi mooy woote nañu li ñuy tuddee concert de casserole nga xam ne def nañ ko fi ñaari yoon ci at wi mooy jëm jumtukaay boo xam ne wax ak Macky la ci anam goo xam ne war naa mun a yomb sénégalais bu ne waaye muy jur résultat boo xam ne ëpp na beneen résultat boo xalaat muy communication bu am solo boo xam ne xale bu am dix ans sax mën na ko wax def ba mag mu am quatre-vingt-quinze ans te bu du génn këram day taxaw ci terrassam wala mu taxaw ci buntu këram wala mu taxaw ci ëttam àdduna yépp di dégg ni Sénégal am na lu ñu naqari ci ni ñu yoree seen réew ak ni ñu yoree seen alalu réew ñetteel bi mooy beneen rassemblement boo xam ne woote nañ ko le 6 janvier muy rassemblement bu mag a mag li am solo mooy lii du guléet fàttaliku leen bi ñu waxee affaire pétrole maa ci njëkk a bind ab téere ñu ciy wax di ci wax di ci wax ba benn télé tugal bu ñuy wax BBC bind ci ab article ca la ñu doog a jóg nag commencé fi ay manifestation waaye dañ naan Sénégal sénégalais départ la am waaye amul arriver mën na xeex waaye munu munu koo yàggal tey dañuy gis ay réew yoo xam ne dañoo am gëm-gëm di xeex ay ati at ay weeri weer gis nañ li xew Iran gis nañ li xew feneen ak feneen laaju ñu sénégalais yi sacrifice bu noonu waaye dafa jot ñu defaraat suñu réew mii ndax coono gi sénégalais yi du netti na te dara waralu ko lu dul yorin gu ñaaw gu ñu yor réew mi li tax nag le 31 décembre am na ñu bëgg a wax naan waaw li tax ñuy woote 31 décembre nga xam ne date républicaine la président war a wax ak askan wi kon waruñu def li mbokk yi est-ce que président la Macky Sall respecté na république est-ce que bu respecté woon république lii muy doxal ci réew mi dina ko doxal moom moo njëkk a jalgati république ci tëj jaay doole utiliser justice di dal ci kaw nit ñi. utiliser gendarmerie di dal ci kaw nit ñi di ngemb ñu luubal alal réew mi non seulement dara leen dal waaye da leen di jox promotion ñu gën a am doole gën a mën a luubal alal réew mi kooku est-ce que républicain la est-ce que respecté na république bi ñu jàpp ni nag comme datu république bi la république bi mooy kan mooy citoyen sénégalais yi citoyen sénégalais yi nga xam ne ñooy république bi ñoom it ñoo war a wax ak Macky ñoo ko war a envoyer un message ci date républicaine bi